yéen ñii diñu seetaan jaaree ko ci YouTube ngeen bëggee jot suñuy publication mën ngeen abonné Al Mouridiyyah te bu leen fàtte laal seen lim tollu ci téeméer ak fanweer ak ñaar ñoom ñëpp ñu tàggat leen ci ay filière yu wuute wàllu togg ñaw ak informatique gannaaw ñetti at tey jii ñu leen di jébbal seeni i lijaasa. dañ koo tànn war koo joxe ay diplôme muy wàllum couture wàllum cuisine pâtisserie ak wàllum informatique waaw lim ngi nag toll na ci téeméeri gone ak fanweer ak ñaar ñoom ñetti at ñu ngi ci centre bi di jàng def nañ première année def nañ deuxième année def nañ troisième année ba tey jii nag incha allahu tabi rabbi ñu daal di invité seeni i mbokk seen i waajur ñu ñëw ànd ak ñoom bis bi di bisub sargal di bisub mbégte waaye di bisub soññee la itam ci wàllu liggéey ñu xam ne diplôme bii ñu jot benn commencement la benn début la. IEF bu Mbacké ñëwoon teewee si ndaje mi rafetlu na liggéey bi nga xamee ni centre bi mi ngi koy amal rawatina ci wàllu formation professionnelle. félicité bu baax madame Mbacké ci taxawaayam. parce que depuis ba école bi sosoog léegi ñu ngi ciy wane taxawaay bu am solo yaatal liggéey bi fexe ba xale yi nga xam ne ñoo ngi leen fi tàggat ñu nekk xale yoo xam ne daañu am xarañte bu wér ba incha allah bu ñu paree lu ñu jàng dañ leen jëriñ signé nañu ay diplôme wala ay attestation waaye ba ñu ñëwee fii suñu xel dafa gën a dal. lu ñu mel nag su anto taxawaayu 3FPT bokk na ci liggéey bi nu mel nag ñu ne daanu koy wëyandi ngir mën leen gunge. suñu amee ab GIE ñu boole leen chambre de métier chambre de métier jàppale leen nga am ay carte professionnelle centre bi war na toll fi nga xam ne war na am ay partenaires ay mutuelles ñi nga xam ne dinañ jàppale xale yi suñu génnee si formation yi ñu mën leen jox ay équipement ñun 3FPT am na ay relation ak terre te suñ ñëwee fële si pôle bi mën na waxtaan xool dan leen mën a jàppale. ñoom récipiendaires yi seenug mbëgte fësal nañu ko ci teewaayu seeni i wayjur ak seeni i jege ñaale. l'ensemble des élèves du centre Sofam ñoo ngi jaajëfal waajur yi jàngalekat yi ak mbooleem ñay liggéey sa centre ba taxawu leen seen kéem kattan ngir ëllëg ñu mënal seen bopp.